Bonjour euh, la presse. Ceci est une déclaration de Pasteur Dakar et de Frappe Dakar. Pour rappel, hein, tout à l'heure, hier nuit, on a reçu l'interdiction de la marche qu'on devait faire aujourd'hui, dont l'itinéraire était de la place de l'obélisque au rond-point de la RTS après Fatima Bank, Abbas Fall, Biram Soleil Job et son épouse et des deux autres citoyens, voici que Guy Marie Sagnan, Clédor Hassan Diouf sont victimes depuis ce lundi 15, 22 février d'un kidnapping d'un État néocolonial pour des raisons reconnues par tous comme stupides et légères pour la même rengaine éculée menace de troubles à l'ordre public. Tout citoyen sénégalais, voire africain, doit raisonnablement être horrifié, déçu et dégoûté par ce qui se passe dans notre pays depuis quelques jours. Le frappe Dakar et Pastef Dakar dénonce et condamne avec fermeté les rafles prétendument préventive d'émeutes et de soulèvement et les tracts illégales qui, depuis le dimanche 15 février, ont cours dans cette vitrine politique de la France-Afrique qu'est le Sénégal et qui continue de plus belle encore si les ordres de notre blesse comparée national. En effet, la vraie opposition celle populaire, patriotique et déterminée, incarnée par le président Ousmane Sonko, continue de troubler le sommeil de Macky Sall. L'acharnement bestial contre le PASSEF et le FRAP, et leur leader, a ainsi fait oublier le slogan mensonger d'un Sénégal émergent. Il a fait faire oublier les exigences nationales et catastrophiques, sociales et sanitaires, la traque contre une opposition populaire qui se renforce et se radicalise de l'Est à l'Ouest et du Sud au Centre. Placer toutes les autres préoccupations du régime de Macky Sall au rang de cadet de ses soucis. PASSEF Dakar et Frappe Dakar demandent à Macky Sall s'il est le président de tous les Sénégalais et s'il tient à son engagement à ne protéger personne, je dis personne, à arrêter cette avalanche de bavures et à s'occuper plutôt de l'identification de toutes les personnes impliquées dans ce piètre complot d'État en cours et visant la froide liquidation d'un adversaire politique au risque de plonger le Sénégal dans un engrenage d'instabilité et de troubles préjudiciables à tous. Frappe Dakar et Pastef Dakar exigent enfin la libération immédiate et sans condition des camarades Guy Marie Sagnan, Abbas Fall, Biram Soleil Diop, Hassan Diouf, Clédor Sen et tous les détenus politiques et réitèrent un appel à la mobilisation du peuple sénégalais dans la lutte contre l'arbitraire, l'injustice, le recul démocratique, les persécutions et les agressions des libertés fondamentales. PASTEF Dakar et Frappe Dakar invitent les populations à se tenir prêts pour la prochaine marche du mardi 2, mars pour exiger la libération des détenus ou prisonniers politique. Ceci est une déclaration de PASTEF Dakar et de Frappe Dakar. Je vous remercie. Elhaj Ousmane Fall, je suis le coordinateur de PASTEF Gultepe Fas Koloban et membre de la section départementale de PASTEF Dakar. Assalamu alaikum Molomi, Mala Abdou Samad Johane, Bokti PASTEF Dakar di coordinateur PASTEF Fan point amitié. Gannaaw sama nataangoo Ousmane Fall waxee xibaar bi ci nasaraan ma tënkal leen ko ci olof yéen ñëpp xam ngeen ne Pastef ak FRAPP dakaar dañoo amoon yéene amal marche pacifique tey ngir xeex ku nekk àq ak yelleef ku nekk ci ñun ak lu ñu boole ñun ñépp démb ci guddi préfet Dakar yónnee ñu xibaar nañu mars bobu da koy ayé di fàttali ne mars dafa bok ci lo xamné depuis 2001 dañ ko dugal ci constitution mu don droit ñu né amato sax di def demande d'autorisation da nga def déclaration de marche kon li am jaay doole la li am foqati ak ak yelleefu sénégalais yi lañ loolu nag du fi lu bees depuis bi fi Macky Sall ak nguuram 2012. loolu nag day firndeel lenn li nga xam ne am na fi si ñaari semaines yu ñu gis ba ñett mooy gannaaw bu ñuy jàppee suñuy camarades di ay sénégalais Abbas Fall coordonnateur Pastef Dakar Birame Souley coordonnateur administrateur du parti Fatima Meng bokk ci FRAPP ak ñeneen ak ñeneen ak yeneen dix-neuf sénégalais yi jàpp fii ci camp Cap Manuel huit sa Bignona di wane ne rek salfaañe bi nga xam ne ñi fi ne ñu ngi koy dox te di ci di te fas yéene wuñ ci dellu ginnaaw ci loolu démb jot nañu xibaar ne Abbas Fall ak Birame Souley daf nañ leen mandat dépôt ñeneen ñi ñu def leen contrôle judiciaire mandat dépôt boo xam ne la mu tegu ci lay dañ ko tàmbalee ba tey bu njëkk ba ñuy waxoon ne ñoom dañoo bëgg a daaneel nguur gi ñu waxoon ne ñoom dañoo yore ay arm waaye dem nañ ba ci biir xam ne yëpp taxawul ñu ñëw ne le ñoom dañoo nekk di waajal di di di jàllale ay xibaar yoo xam ne day wuuteeg suñuy mërs ak violence ak injure loolu nag day wane ne rek ñoom ñi fi ne ak seen justice bi nga xam dañ ko manipuler lañu nas te yàgg koo wax mooy ne fexe ba seen xalaat ñoom koo xam ne indi nga xalaat bu wuuteeg boobu danañ fexe na nañu la naxa saxale nañu teree nga wax nañu teree nga exister mooy bépp parti politique danañ fexe ba doodoo exister loolu nag di xamal nit ñi ne Pastef ak FRAPP Dakar newuñu ñu ñuy xoxotal ñëw ni ñuy tiit ñëw ñuy ragal ak sénégal yépp ñi nga xam ne yoon ak yelleef da leen ñor loolu tamit ba mu weesoo ñu gis ne démb ak barki démb ñu ngi wër di fekk nit ñi seen i kër war leen a jox leen ay convocation ñu ñëw fekk seen police waaye dafa ñu ko dañ leen fekk seen i kër fekk leen seen i biir njaboot ñenn ñi génn doxi seeni soxla ñu leen di ramaas lu ñaaw ci koo xam ne daful reyul sàccul nekk ci li ko xam ne mooy yoonam ñu leen di ramaas dindi seeni i droit dindi seen àq ku mel ni ki Guy Marius Sagna ku mel ni Assane Diouf ku mel ni Clédor seen ak ñeneen ak ñeneen di xamal nit ñi ne loolu su dakkul ku nekk su ñun ñu fi teew ak ku nekk fa nga nekk sa kër mun nañu xëy toroxal la sa biir njaboot mun nañu xëy fekk la fa ngay liggéeyee jël la ci loo xam ne da ngaa wax sa xalaat ci loo xam ne da wax li la yoon may. kon loolu tamit ñu ngi koy dénoncé FRAPP Dakar ak PASTEF Dakar ñu ngi koy dénoncé di wax di artu di wax ne ñoom lañu waroon def mooy jéem a xool. mbas mi ñu ne ndóol mi mu indi ci réew mi xiif bi mu indi ci réew mi nit ñi xëyatuñu amatuñu lu ñu liggéey amatuñu lu ñu lekk ñoom ñu teg leen fi jox leen suñu xaalis jox leen suñu sécurité ñu war a wut seen xalaat ak seen i jëf jéem wut pexe lu ñu dindee loolu waaye ñoom ñu ngi fi di jéem a nasaxal nit ñi ñu war a xool complot bi nga xam ne Macky Sall wax na ko démb mu jóge ci ay kàddoom ñu war a jéem a xool ñan ñoo nekk ci ginnaaw complot boobu ndax PV wane ne na ay ñu bokk ci benn Bokk Yaakaar ñu bokk ci nguur gi ñoo nekk ci ginnaaw ñoo xam ne avocat avocat bi nga xam ne bokk ci nguur gi médecin bi ak ñeneen ñeneen ñu war a jéem a xam ñan ñooy wër dina xal yoonu nit ñi dina saxal ak ak yelef nit ñi ñu war a def naka la war a def ba ñooñu ñu ñu jéem leen xam déedéet defuñu ko lañuy def mooy jéem a tere nit ñu ñu dund tere nit ñi ñu wax seen xalaat loolu nag Pastef Dakar ak FRAPP Dakar. taxaw nañ temm ngir xeex loolu di fàtte ne xeex boobu dafa den xeex bu noble ndax démocratie réew mi depuis 1880 ñu koy xeex di ko xeex ba mu toll fii duñu nang nangu mukk sa fukki at ak ñaar yi mu dell ginnaaw fas yéene nañ koo xeex ak képp koo xam ne Sénégal ñor na la ak képp koo xam ne réew mi ñor na la xeex boobu duñ ci dellu ginnaaw FRAPP Dakar ak Pastef Dakar duñ ci dellu ginnaaw di wax ne. dañuy laaj di exiger ñi nga xam ne téye nañ leen xañ leen seeni i seen i liberté xañ leen seen njaboot ñu ngi wax nguur gi mu bàyyi leen ñu ngi koy wax kilifa yi réew mi muy ci diine yëpp ak aada ak képp koo xam ne da nga nekk bitim réew di organisme internationaux yi di ambassades yi ñu wax ak nguur gi ngir ñu libérer leen ndax ñooñu defuñu dara la ñuy def mooy xeexal seen réew xeexal seen réew nag dara gënu ko kawee ci jaamu yàlla ñooñu nag la ñuy def. ñu ngi wax nañ leen bàyyi ñu dellu seen i njaboot ñu ngi sant di leen gërëm seen teewaay wasalaam. marche bi de marche bi ci bi gannaaw bi ko préfet tere di wax ne ñun incha allah fas yéene nañu defaat marché léegi rek suñuy ndaw dem nañ déposer préfecture beneen déclaration de marché ngir mardi incha allah fas yéene nañu marché 14h ba 19h jugee place de l'indépendance jëm buntu pale ndax réew mi. buntu pare koñ boobu gënul koñ bi nekk Gueule Tapée gënul koñ bi nekk Bignona gënul koñ bi nekk Tambacounda Sénégal dañ ñu ne fépp foo xam ne am nga ci droit dox mun nga ci dox incha allah mardi danañ def marche te yeneen action danañ ci lépp loo xam ne yoon may nañu ko danañ ko jël ba mu mat sëkk ngir xeex loolu. boobu li ko waral marche ñëpp xam nañ ko li waraloon marche tey bi bi préfet bi aaye moo waral marche boobu. mooy ñi nga xam ne téye nañ leen ci lu jaar yoon ñu dox ngir ñu bàyyi leen ñi nga xam ne ñu ngi ñuy ñu bàyyi xoxatal bi la nga xam ne nguur gi mu ngi koy teg ci métit ci réew mi droit yi nga xam ne constitution moo ñu ko may loolu moo waral marché bi te du yem ci marché bi kese yeneen dina ci tegu incha allah. ah damay wax ne provocation suñ ko tudd mu ngi tàmbalee si ñu ñuy jiite ndax nit ki mënoo fekk ngeen toog. constitution tënk leen ay loi tënk leen ñu ne kat ku mu neex am nga droit yëgal nguur gi ne da nga bëgg a dox ku mu neex ñu ne la doo ko def kon ñooñ ñoo ñu ko provocation waaye koo xam Pastef ku xam FRAPP xam ne mosu ñuy dox ci provocation ay légaliste lañu légaliste boobu moo waral tey bi ñu jotee démb préfet bi daf li mu def nga xam ne tegul ci benn yoon loolu mooy première provocation ñu ne dañuy bàyyi marche tey bi waaye dañuy xamal ne. du ñu mës a dox ci provocation waaye lépp lu ñu yoon may incha allah ko jël. ak contexte démb ci mujj ndax bi ñuy def ñaq bi ñuy wane démb rassemblement am na fa bi ñuy wane président muy def tournée économique rassemblement la ba ñu wane ñu inauguré seen i pont dañoo rassemblé bi ñu wane lépp lu ñuy def ñoom ñu ngi rassemblé waaye ñoom dafa mel ni réew mi daa am ñu war a def rassemblement am ñu ko war a def dañu na ñun marché bi ñu war a def. lepp luy mesure barrière dañ ko dañ ko respecté muy masque muy gel muy distanciation dañ ko def ndaxte nak mbass mi waru ñoo téré dund ndax ñoo il faut vivre avec la avec le virus donc lepp lo xamné ne lay tax mbass mi baña jaxoso suñu biir ñun dañ ko def waye tamit duñu téré marche inshallah est ce mi mi tax am ndaxte damay wax sénégalais yi ne weer lu tegal a ngi nii ñu tëj ndakaaru ak Thiès nan naan mbas mi waaye kuy xool li am saasu ne kaa yaa ngi yokk loolu nag lañuy ñuy bañ sénégalais wax ko loolu lañuy ñuy bañ sénégalais posé leen ci question ne leen mesure yi ngeen teg teg ñu ko ngir di ñu souffrir loo ana yan la jël ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci mesure yooyu jurul dara ci lu baax loolu seen échec la. échec boobu la bañ koo wax lañuy ñuy bañ journaliste di ko wax lañuy ñuy askan mi di ko wax moo tax ñuy dévier askan wi di leen jéem a dugg ci ay mbirum fait divers di leen jéem a persécuter loolu nag ndox ba sénégalais yi maturité bi ñu am sénégalais yi xam nañu yi ñu ngi dund souffrance seen biir sénégalais yi ñu ngi muñ waaye muñ boo gis day am fu muy jeexee Cheikh Anta dañoo wax naan lañ la mën a teg suñu borom du wàcc mukk dindil la ko fekk jugoo dindi ko kon ñu ngi wax askan wi nañu jug dindi lii nañu jug xool lépp lu ñu yoon may ñu dindi ko ñu dindi ko moo gën ñuy toog di dee suñu kër yi ndax ñi ñuy jàkkaar lool askan wi taxu leen jug noot askan wi moo leen tax a jug. waaw bii may bi mujj question bi mooy ne ñu topp li ñu toppee ñoom Guy sa Guy Marius Sagna ba tey ji nii newul loo xam ne du yoon lépp lu ñu leen toppee lu nax sax lu lu jaadul yoon la te ñun lépp lu ñuy wax fii. constitution moo ñu ko may loi bi moo ñu ko may loi bi moo ne képp ko am loolu naqari am nga droit wax ko am nga droit dox ci am nga droit jëf ci ba lépp loola yoon may nga jëf jëfe ko ñu ngi leen sant di leen gërëm